ñuy gërëm sëriñ bi nag ndaxte lii munuñu ko woon a ñàkk mënuñu woon a wàkk tawféex gi nga xam ni yàlla defal ñu ñu ko mënul woon a ñàkk ci réew mi ndax réew mi jaf amoon na jafe-jafe yu bari yoo xam ni maanaam ci maanaam jàmm nga xam ni ku ne jéem na ko kuy kilifa ci réew mi rek jéem nga ko kuy kilifa boo xam ne yaa ngi ci wàllu àddina muy politique jéem nga ko kilifa yi ne ci bitim réew di nattaangooy kilifa yi fi ne jéem nga ko sëriñ Touba dimbali ñu ci ubbite gi nga xam ne gi mooy jumaam ji nga xam ni mbégum suñu borom la ñu sëñ Muntaxa indaaleel ak Cheikh Mouhamadul bashir mii ñu dox ba nga xam ne bii jàmm am na fi joo xam ni kenn mënul woon a xalaat ni jàmm ji nii lay amee ñaar ñi nga xam ni ñoo mas a yilif réew mi muy la président Ablaye Wade nga xam ni moo yilif réew mi joxoon ñu pakk bii ca jamono ji mu fi nekkee ñu ñu liggéeyal fi sëñ Touba lu toll nii ak président Macky Sall mii nga xam ni yàlla moo ko jox réew mi mu nekk président de la république ñëw fekk réew mi fii mu nekk ndax ba muy nekk premier ministre président Abdoulaye Wade ñëpp xam nañ ni lu président Abdoulaye Wade def ci liggéey ma nga ca biir liggéey ba yàlla ñëw jamono di dox ba ab réeroo am ci seen diggante ñuy tàmbali liggéey bi président Macky Sall dugal ci loxoom ji wax ko sëñ Mouhamadoul Bachir mii nga xam ni tali yii nga xam ni moo wër jumaa ji ak lumière bi yokk mbedd yi nga xam ne lu jigee ci juróom-ñetti milliards def na ko ci ak leneen loo xam ne bii sax dugal na ko ci biir loo xam ne lii dadul teggin kilifa jël addiyaam di ko joxe ñuy wax ni joxe na nangam ak nangam wóor na Cheikh Mahamadou Bachir mii muy lu wér wér nga xam ne koppar yu bari jël na ko def ko addiya jox ko Serigne di Maxtaar mu jox ko ko mu dugalal ko ci jumaa ji kon ñoom ñaar am ab réeroo boo xam ne bii mbiri àddina la ci lu mat lu matul waxtu sëriñ bi boole leen wax leen jox leen ndigal ba ñu joxante loxo ci àddina bépp ba président Macky sàll daal ni président Ablaye Wade maa lay yóbbu ba sa kër xam ngeen ni loolu yombul taxaw ni sécurité bi dematuñu pale dañuy dem ma yóbbu président Ablaye Wade ba këram mu ñaanal ma ma doog a dellu fa may dem. loolu sëriñ bi ku defee ni lu yomb la yombut waaye nag day wane rek taxawaayu sëriñ Touba ci ci réew mi. Sëriñ Tuubaa dama daan faral di wax ni yàlla da koo may àddina may ko àllaaxira xanaa loo xam ne lii jubluwu ko rek waaye lu mu jublu yàlla fekk ko ci te sëñ Muntaxa mii ku ko xool ak mbigam lii xam ne mooy Sëriñ Tuubaa tamat na ko sëkk kon sëriñ bi ñoo ngi lay gërëm duñ la gërëm ba mu ba mu ba mu ba mu lóor ndaxte boo ko defuloo nit duñ ko wax mënoon nañ ni patt jàpp suñu njàmbur wala ñu njatt suñu loos waaye danga ko def wa ma shahidnaa nag illaa bi ma alim